bu ñewul ci ñom ñu torox yusu man ba may toog ak mom ne ko nañ def départ négocier mu ne ma damaa bëgg nga ñew di la sa liggéey man ko départ négocier la bëgg mu ne ma aysatu yow ci kër gi nga bokk te mënuma supporter nga génn ci kër gi kok du gor ab mm-hmm. kok du gor wa est ce que man duma gor te lii man mooy keneen yaa ngi gis chaque jour fii nit am fi dara génn dem nëbbutuñu parce que Youssou moo wax naan man sama fierté mooy. ma yor ay nit ma yor samay rakk. yow soo la jàngalee. yow yaa ngi amatoo dara. <laughs> amoo rentré te bu nga téye say nit. waaw parce que moom moom noonu la mel xam nga damay tout le temps dama am chance chance bi ma am ba mu ba ma weesoo ba ma yàlla suturaale ma am parent ak yaay yi ma am yàlla dafa maa teg si ñaari nit dafa ma dafa maa boole ñaari kilifa ñaari kilifa ñaari kilifa kenn ku ne ci domaine am waaw nekk ci roi nu ne euh, si la mi ñas jàngal ma àddina mm-hmm. jàngal ma état mm-hmm. jàngal ma diplomatie te sur la mi diplomatie bu ma jàngal mooy diplomatie souterraine si la mi moo naan moo wax naan la vraie diplomatie mooy souterraine si la ma jàngal ma gestion jàngal ma management. ak discrétion. ak surtout discrétion camouflage li ngay wax. camouflage non loolu. ci laa ko déggoo léeg ma leen xamoo leen ay si lamin moo ma jàngal bilaay moo ma jàngal camouflage waaw camouflage boobu boo te te yoo laa jëlee si lamin moo ma jàngal camouflage mais Youssou Ndour dafa ma dafa dafa mottali li si lamin ñas def si man Youssou Ndour dafa mottali lima ma manqué woon mhm. formation bi ma manqué won mhm. sur le plan humain euh, d'abord sur le plan humain mhm. li ma dama amoon lu bëri la ma manqué mooy xet xët bee kii Sidi jéemoon nako ci man mais xam nga man Sidi euh, aw dama amoon moom sama xarit la won mais Youssou dama ko man Youssou muy na ma ko Youssou fréquenté wu Youssou dama amoon dama dama am kersa ci mom dama ko rus léegi nag kersa boobu nag moo tax sur le plan humain sama xët-xët bi ma amee woon man ñu ku ma doon seetaan wal faje boo ma seetaanee wal fi juma yaay xam nga ne am na lu changé ci man donc ci ci Youssou Ndour laa amee maturité mu jàngal ma tamit une autre manière de gérer les ressources humaines jàngal ma tamit une autre manière de gérer les gens tout simplement wal fajee xuloo naa fa ak ñëpp Futurs Médias nekk naa fa ba ni ma fa jógee xuloo ma fa kenn ñoom fu xuloo woon tuuti sax jubóor ak ñoom moo ma jàngal Youssou Ndour jël auteur ndax xam la la ma doon wax Youssou mhm. ma star nga man xam la mooy star xool star ba dañu Youssou Ndour naa may Aïssatou star nga dama xam nga la mooy star mhm. maintenant mu ne mooy yow boo ne dett ci bërëb ñépp xam ne ñëw nga oh. surtout waaw mu ne ba pare latte woo mu ne ma latte woo Aïssatou yow latte woo Latte wo beri wo wax lambuloo fu ne lañ lay gis ni la ma ko doon waxee ñu ne ma ah, wo da danaa def ay affaire duma fi gis mooy jël telephone wo mais adé foo kon jëm joju ay espèce jogé na dañ koy xass sen bop lañu xass te ñooñu Ousmane Sonko nak laay laay laay laay baaxee. xam nga Ousmane Abu waaw moo tax Ousmane foofu xam lu ma koy baaxee. c'est un homme réfléchi. waaw non doful je connais Ousmane du ko def. non ba ba pare man dama gis ne euh, jaam yooyu yëpp gis naa ne doxu leen dara tegu leen mhm. fenn parce que nag. Euh, ñemewu leen sax voilà ñem baat ñeme wala këf ci yow parce que gis nga euh, Ousmane ñun bu we bu weesoo muy su ma ñun mooy ñun nii ñun ñii waa public mhm. ñun. Euh, benn soxor nekkul ci ñun ñun nous sommes pas des aigris ndax bala yàlla terelee. Mm-hmm. am na façon xalaat yoo xam ne mënoo ko am am na yenn sentiment yoo xam ne mënu la animer ñun yéenewuñu ko mu échoué ndax bu échoué ñu Sénégal lañ bëgg ñu pour Sénégal ku defar doo taal. Oh. ñun duñu yàq ndax ñun am nañu possibilité man ba nii nii nii sama yaay ne ma yow doo doo jaay sa li nga dellu France sama demee France du ma te daa naa am une meilleure vie parce que je vais vivre dans l'anonymat ndax man yow xam nga ne man ñu ma xam comme li ma wax rek j'ai <laughs> damaa bëri personnalité mais bu Sénégalais gis ni bokkul c'est pas ma vraie personnalité man ci anonymat laa gën a doxee mais ba ñu toogee fii ci réew mi parce que ñu lépp lu ñu am ci àddina Sénégal la mm-hmm. lépp lu ñuy ñàkk tamit pour